sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mi ngi gane àddina ci guddik àjjuma ñetti fan ci weeru muharram atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti ci gàddaay gi dëppoo 1914 loolu amoon ci daaru Alimul Xabiir di ndaam woy juróom wu jigéen di soxna Aminta Bousso kenn la ci doomi sëriñ Bousso bi mi nga xam ne rakk la ci soxna Mariama Bousso jaaratulaa woy juru Cheikhul Xadim Cheikhul Xadim moo ko dalal soo ko jox sëriñ Daam Abdourahman Lo sëriñ Ibrahima Ndiaye mooy ki ko taxaw ba mu wattu sëriñ Abdou Xaadir itam ginnaaw bi mu wattoo dem na géde ci sëriñ Mbàkke Bousso doon fa sàkku xam-xam naka noonu itam ci sëriñ Mouhamadou Dem mi nga xam ne borom xam-xam lu mag nekkoon ca njaareem lu tolloog ñaar fukki at ak ñaar jiite na ko jumaa ju mag gi loolu dalee ci atum bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké wàcc na ab liggéey boobee ba ni nga xamante ni la wuyu suñu borom mosula manqué juma lu dul bi nga xamante ni dem na màkk ak fan yi nga xam ne nekk na ci tawat ji mu doonoon koo xam ne ku ko tudd tudd sunna mbooleem ñi nga xam ne daan nañ ko xool gis nañ ne dafa jaaroon rek ci tànki Serigne tubaa doon koo xam ne ku amoon xam-xam la ci wàllu hadis siira ak lépp luy lislaam ci ak tënk waxtu julli fonk gi mu ko fonkoon ak waajal gi mu ko daan waajal doonoon na loo xamante ne ku mës a teew fi moom mujj na nga xam ne waxtu yi daf leen di waajal wàttaay wu jekk ngir mën a jàkkaarloo ak suñu borom mu doonoon koo xam ne itam ku ko tudd tudd ab tag aku dimbale mboolem ñi nga xamante ne dañ daan ñëw ci moom di ko sàkku daan dimbal nit ñi daan taxawee ñi nga xamante ne dañoo wàcc ab liggéey naka noonu itam lépp luy bégloo doomu aadama yi boo ko xamee daan na ko def ngir lépp loo xamante ni lu naqari la daf leen ko daan soril sëriñ Abdou Khadr Mbacke doonoon na koo xamante ni jeexitalu sëriñ tubaa daf ko daan ittewu ci lépp loo xamante ni laal na ko wala mu mës koo def wala muy loo xam ne lu mu moom la. looloo waral mu daan dem fu mel ni naawel barabu soxna astawaalo daan dem poroxan ci soxna jaara noonu it la daan demee xuru Mbacke ak fune ba ci barabu maam Maharam mi nga xamante ni. maam la ci Seexul Xadim déqale gi nga xamante ni Maamor Anta Sali fa la ne daan na fa siyaare barabu sëriñ bu bi ak fépp foo xamante ni barab la boo xamante ni sëriñ mag bi mës na faa jaar wala lenn lu bokk ci ay jeexitam mu doonoon it koo xam ne ci liggéey ak yar taalibe yi moo doon sababu daara yi mu sancoon bustaan baxdaad ak yeneen yi nga xamante ni defoon na ko ngir dimbali nit ñi yar leen teg leen ci siraatal mustaxim nekk gi mu nekk nag ci bopp yoonu murit doon na ay weer yoo xam ne weer yu néew la di fukki weer ak benn mu amoon juróom-ñaar fukki ak juróom bi nga xamante ni mi ngi wuyu suñu borom ci bisub dibéer fukki fan ak ñett ci weeru mai 1990 di ko xam ne mbooleem ñi nga xamante ni gis nañu dara ci ak dundam wala ñu dégg ko dinañ fàttaliku koo xam ne ku amoon cofeel la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am cofeel ci seexul xadim mii sëriñam di woy juróom fonkoon sunna dundal islaam doon koo xam ne ba bisub tey ñëpp dañuy fàttaliku jiite yi mu daan jiite ci jumaa ju mag ji